Aïcha mi ngi koy tudd léegi amu leen ay toilettes ñi ñiy wax ay cotisation versement yi IPRES <laughs> euh, maanaam couverture maladie insécurité kii loolu noonu yëpp da ngeen ko doon casse et vous étiez déterminé da ngeen waxoon ne fan fan la toll est-ce que am na au moins benn avancé par rapport ak casse yooyu noonu ngeen waaw léegi suñu suñu suñu syndicaliste suñu suñu syndicaliste yi ñuy jiite ba léegi demul parce que CNTS moo leen doon jàppale soi-disant. ci si mhm. loolu noonu je ba léegi affaire bi mu taxawoon la taxaw ba léegi ñu ngi siy yëg di wàcc ba léegi tey jii ñi nga xam ne ñoom ñoo jël suñu xaalis chaque jour ja coow loolu ba tey déggoo leen si waxuñu si ba léegi ba tey waxuñu si jeunesse bi ñoom ñooy ñoom ñooy collaborer ba léegi di si def seen social ba léegi tey jii nii am na am na am nañ benn chauffeur boo xam ne dafa accidenté si otoom mu ngi mi ngi nekk euh, Kaffrine Cheikh Bombardier presque tëdd na yaa trois mois ba ñuy nekk si naan la ñuy dagg tànk duñ ko dagg ba tey transporteur transporteur tegu fa tànkam bu ñu ñëwee bon maraîcher génnewuñu fa lu dul 30 000 francs la ñu fa génne te chaque jour mu bind si bon maraîcher bi 30 000 mu dagg bon 30 000 francs loolu fu mu xam na ko mooy syndicat seen bopp lañ fi nekkal. waaw mais on n'a pas compris. mu dagg. bon mooy oto bi siy génn day dagg bon. 30 000 30 000 su fekkente da ngay dem Ziguinchor wala Diaobé su fekkee da ngay génn si àll bi ay Kaffrine ay lii nga dagg bon 20 000 francs bi du kan doog dalee bi ñu demee foofu di laaj social 30 000 francs lañ génne joxe. ne loolu lañ loolu lañ ko mën a jàppalee dégg kooku da taxaw di xaar syndicat yi syndicat ñoom lay dimbale parce que seen bopp lañ fi nekkal. waaw mais état nag ñoom la ñoom la mën a waxal. dégg mais mais état léegi état ñoom la mën a waxal. léegi moo tax ñun tamit ñu génn pour waxal suñu bopp te xam ne syndicaliste c'est pas forcé que mu mooy jiite chauffeur. chauffeur moo koy jiite syndicaliste c'est juste une défense pour chauffeur mooy da am problème nga ñëw gis voilà kon ngeen toll ci loolu. dégg mouvement moom laa wax ne kayit yi dugal nañ ko yaa may dégg ñu ngi topp ñu ngi topp parcours li ñu laajoon. lépp jox ko mu tudd. ànd ànd doole transport. ànd doole transport. léegi dugal ngeen seen ay kayit. pour reconnaître leen waaw saa ni moom la xaar mu génn ci kàttanu suñu borom boo génnee ñu gën a xuus lan ban changement ngeen di ngeen di indi ci doxalin syndical bi c'est-à-dire euh, quest que vous de nouveau parce qu'il y à boire et ouais. à les les les euh, les les les les centrales syndicales euh, da dañ ko dafa bari donc yéen qu'est-ce que vous apportez de nouveau loo xam ne ñeneen ñi dañ koo tëlee waa incha allah suñu suñ suñu ñëwee su yàlla dogalam ñu agsi ak jàmm li ñu njëkk a def mooy dinañ fexe utal chauffeur yi caisse sécurité sociale mutuelle de santé ak seen retraite fexe ba seeni doom yi di fayeeku si kàttanu suñu borom yaa may dégg beneen bi si loolu ngeen di imposer. moom la ñuy imposer ñoom ba pare beneen bi si mooy seen waajur yi suñu duggee si biis yi seen papa ak seen yaay du fay ak seen doom yi parce que loolu moo am loolu moo am si suñu si suñu si suñu transport bi ñu moomal suñu bopp. Mm-hmm. loolu moo fa am pourquoi pas ñun mënuñu ko am loolu la ñëw pour imposer ko. ba pare yokkum salaire bi